allo Daba. waaw day métti nag pour ñu yëkkati kàddu allo Daba waaw. waaw man maa dégg bu baax. waaw waaw ñu lay dégg metti na waaye nag euh, lii bu amee ngeen di artiste waaye tamit foog ñu jël ngeen euh, seede ci nit ki. wallaay métti lii moom tey Sénégal yëpp am na allo. ndeysaan dëgg la ndeysaan. maa am na ndëg bu mag tey. dëgg la. dëgg dëgg am na ndëg bu mag. ndeysaan. koo xamante ne mënul woon dafa bëggal boppam mm-hmm. waaw. Mm-hmm. mu ne ma àdduna bi dafa amul solo mu ma wax lii ci dëgg. xam na amul solo doom da ngeen góorgóorlu bu baax ngeen jàppale pour bëggante artiste xol bu bon mais tamit Sénégal la fi nekk man boobu man bëggatuma dara yàlla sedd na ko parce que li fi nit di daw tamit amul sens tout sekk ak ñun lool day bi ko yàlla defal te ñun ci suuf rek la man moom bu mu mel ni mu mel ni li ngay wax ci seen diggante ñun dëggal nañ ko rek ci yu ci production yu mujj yi jaaga bi mu koy way nee na yow la ci sentir sa voix ba ba ba woo ngeen ànd ci loolu rek defe naa ni ndaanaan bu mel ni coon sekk ku mu wóolu ndaanaan nga CEDEAO bi mhm. bi dugaloon nga ko ba pare dugal waaw di ma wax boo nekkatee si biir dee ma woo ma ñëw toog maanaam def ma doom def ma doom bëgg sama des fois day jëkk ci téléphone moom dara dëgg la dëgg la daba dëgg la la ñu la koy masawoo dara bugguma ko dëgg la ñu ngi lay masaw bu baax ay jëm jërëjëf muy euh, Daba Seye moom euh, defe naa ni dégg ngeen ko nee na projet boobu di euh, CEDEAO en cœur jot na ci dugal trois morceaux yoo xamante ni Papa ñoom ñaar liggéey nañ ko ba mu dugal ko ba pare muy ak yeneen artistes yoo xamante ni demoon nañu ba dugal aussi seeni voix ñu dugal morceaux yi nga xamante ni moom la leen Papa Thione sasoon ñuy wax rek dama naan ku génn àddina rek da ngay daal di bàyyi mbébét waaye Papa con mii bàyyi na mbébét bàyyi na mbébét bu rëy